gis ngeen tey ñu ngi fi ci court house ak Ousmane Tounkara mi nga xam dafa war a gis tey so mu ngi gis naa fi le grand Cheikh Thiam l' ambassadeur mais l' ambassadeur loo wax tey ci sa teewaay fii tey euh, ak ak ak procès Ousmane bi. Sankara euh, tey je crois que lu bis bu bis bu symbolique la fii. parce que c' est une grande première. Mhm. c'est une grande première euh, sénégalais yi. ñu ah ah. am c'est une c'est une grande première ñu am benn sénégalais bu ñu indi fii au niveau de l'immigration war ko juger. Ah et indi ko ci code bi fii. sénégalais yi dajaloo de cette sorte. musul am c'est une grande première. dans l'histoire des États-Unis je crois que ci benn Guinée la musa amee muy affaire Mamadou Diallo bi. li ko waral nag mooy. Euh, état du Sénégal par rapport ak activité yi fi amoon il quelques semaines jóg nañu xool yenn activistes yi nga xam ne ñu ngi influencer sénégalais yi pour ñu jóg pour ñu xeex seen dëgg ak seen ak ak seen yelleef ñuy leen di diaboliser par rapport ak dëkk yu ñu nekk ci la ñu déposé benn plainte accusé ko de terroriste man nag dama jàpp ni combat bi c' est au de c' est de Ousmane Tounkara ak l' du Sénégal wala au delà de Ousmane Tounkara bu supporté benn Ousmane Sonko contre benn Macky Sall. man je crois que bépp sénégalais bu nekk bitim réew. bépp mhm. sénégalais bu nekk à l' étranger rek. Mhm. war nga mën a jóg nga xeex lii. parce que dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne dafa nekk loo xam ne du caageenu jëmm Ousmane Sonko. Ousmane Tounkara bi nga xam ne da ñax ñaxtu dafa nekk képp kuy sénégalais nekk bitim réew te bëgg doxalinu sa réew mu jëm ca kaw war ngaa mun jóg xeex yi parce que bu ëllëgee beneen état lay doon ak contre beneen sénégalais que ça soit muy Macky Sall wala muy Ousmane Sonko képp kuy sénégalais nekk bitim réew di wax loo xam ne naka su dul noonu la wala nga wax li nga xam ne moom mooy li gën ci réew mi te neexul état dañuy am capacité jël si lëf nga nekk kon ñun ñëpp war nañ koo xeex Sankara loolu laa gisee woon. thank you thank you